arbitre bi sifle na Kaana ndeysaan arbitre bi sifle na combat bi ci diggante Quench ak Lac Rose Lac Rose moo nekk foofu nga xamante ne nii mooy Fass waaye Quench mu nga nekk fële ca Lamsar arbitre bi sifle na combat bi. waaw Quench day mbëru gox bàyyi ko barñi mais Lamsar la nekk Lac Rose di doomi Fass di doomi Grand Dakar mais dafa mel ni Lac day attaqué Quench. waaw Lac Rose loolu la ko xamee day attaqué moo tax fi ne nii moo dóor loolu moo ngem moo ngem bu bi. waaw door na ngeen boobu xonk ngeen bu xonk ko xamee woon. langal ko ci ginnaaw. dañuy xeex xeex xeex. mais xeex bi est-ce door mu daanu du am Bamba Thiam. Ah, bu ma doon kawen si lii du ma ko nangu. waaw kon xeex bi yëpp dañ ko jël non si bëre bi la war a gën ko jox. waaw parce que ci moom lañ gën a xaar bëre quoi ka Lac Rose. lii laa d'accord jàppante. voilà jàppante a wuree si biir bëre. mais Bamba ñoom ñaar xaw nañoo bokk bëre nag parce que ñoom ñaar ñëpp ay mbëri giño lañ dañuy jàpp. ca kaw la ñuy bëri. waa kii day jàpp buddi yenu gis nañ ko ci gis nañ ko ci coin mais bu dee Lac Rose day jàpp si kay yow zongale la dama xamul nag ndax doole ji dina ko dina ko mate wala déet. ñoom waaw surtout loolu ndax doole ji dina ko mate moo tax ñoom ñaar bi kenn ku ci nekk rek yaa ngi jàpp si sa ngemu morom taxaw fi mu ne nii ndeysaan lamb ji ñuy supporté ñu tëgg ñu tëgg waa ñuy filmé ngi filmé ci biir fii nga xamante ne nii mooy 4appuis TV. ndeysaan xoolal ma loolu ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante kaana Quench moo gën a jekk ci biir jàpp bi waa fi mu ne nii Lac Rose loxo droit am bi bu ma doon a mooma dama koy génne uh-huh. dama koy génne mu mu daal di féete ci biti mais fi mu féete ci biir non baaxul parce que Quench mën naa xëcc xar mun mun na mun na def leneen parce que mun na ko vider. mun na ko mën a jox ma loxo mais ma doonoon Lac damay génne sama loxo ci biti. jéem a jàppe ci jéem a jàppe ci biti moo gën nee mu jàppe ci biir ndeysaan mi ngi noonu ba léegi ñoom ñaar ñu ngi jàppante Kawens booy ak Lagros Lagros moo nu féete ginnaaw waaye Kawens ndeysaan moom la ñu jàkkaarlool moo bëggoon a bët ndeysaan la xonk a deñ na waaw rëcc na loxo droitam bi ma la waxoon uh-huh. parce que fi mu nekkoon ci biir da ko doon gêné mu def lu bëri uh-huh. parce que da may Kawens mu koy mën a mën a te loolu baaxul ci Lac Rose. loolu baaxul ci moom. waaw mais fi koon si jàpp nag dafa baax parce que dafa tëj bële Lac Rose. dafa sëq ci loxo yi ci ñaari guiño yi ba pare. Uh-huh. jël boppam teg ko ci dënnu Lac Rose ndengeñ ko Lac Rose fi ne mënul def dara. fi mu ne nii mënul def dara. moo tax ñoom ñaar kenn ku ci nekk rek jàpp nga ci sa loxo morom waaye fi mu ne nii nag Quench moo am ngem moo jàpp waaye Lac Rose fi ne nii daa taxaw mel ni kuy déglu. waaw Lac Rose yoon la mu déglu ko dafa war dindi fi fi Quench si jàpp parce que baax na Quench si moo ko gën a jekk ci jàpp bi mais su ma doonoon Lac Rose sama pop du féete kaw. mais fi mu ne nii cinq yi ñu wax bu yàggee est du jot. non léeg-léeg mu mat cinq minutes non combat bi mënul jeex ci cinq minutes. mënut a yombee noonu non non mënut a yombee noonu parce que Lac xaw na gëj a bëre. si uh-huh. lañ gis ne moom moo mujj a bëre. Euh, bëri na fekk double moteur. bëri na maa ngi compétition bi bu combat bi yàggee. bëri na fekk jën kayre. voilà bëri na bi yàggee mun na bañ a mun na bañ a arranger. Lagros la non asafura Lagros. Ah. waaw parce que dinañ ko yaakaar parce que gëj na compétir. te gis nañ ko mu xaw a andi masse. gis nañ Lagros mu xaw a andi masse. ndeysaan xoolal ma lii da koo bëgg wax lay laa xëy na laa mais eh. eh Lagros bi tamit. no mais Lac Rose mi day bëre de. waaw mais mais ku nekk Fass nag bëre warulaa mën a jaaxal. mais damaa xam ne Lac niñ ko niñ ko ak nii mu demee du benn. non Lac Rose ndaanaan la lamb moo xaw a doy waar ak problème bi ma amoon mais yoonam sax waroon na gën a nekk ci kaw comme fi ñoom booy ñaa nekk. dëgg la Ama Baldé parce que ñoo départandoo. Uh-huh. voilà mais blessure bi ma am ak gëj a bëre bi. Ah, moo ko tardel ci moo ko xaw a tardel. mais nag combat bi di yomb ci ñoom ñaar ñi. combat bi combat bi a yomb. su ma doonoon non bopp cointre bi fi mu ko nekk dama ko fi jéem a génne. mooy ndengeñ boobu waaw ndengeñ boobu. ndeysaan at bi bàyyi leen dañuy bëre. Mm-hmm. mu ngay dóor. waaw lii nag lii nag am la. non bopp bi war a génn. ba pare lii arrangement la bopp bi war a génn foofu mu tege waru faa tege. Uh-huh. voilà. mais dóor yi muy dóor daa xooloo ma ci de. non dóor yi du dal te da lay sonal. voilà da lay vidé day jël ci coffre bi lu bëri loo xam ne ni na jàpp déglu. na jàpp déglu voilà fi ne la Coence ama na fi ne am na moo kam voilà Lagrosse am na ko. loolu mooy Coence moom it moo war a dóor no bopp bi gën. non si parce que Coence gis nañ ne bëreem lu bëri bu jàppee sa ngemb day putuxlu wàcc bëtt la bopp bi il faut mu am fu mu ko sës mu doog a gisoo ko nii. ndeysaan mi koy bëgg a manuel pour tuur ko. waaw mais daf ko bloqué. waaw mais Lagrosse dafa mel ni dafa xam li Coence nar ko dëgg la tenté na ko deux fois trois fois yoo xam ne réussirul mais attention. Lac Rose na bàyyi xel ci kale boobu noonu. kii waaw bu ko réussir rek mën na am lu ko ci bett. bu am lu ko métti. ndeysaan ñoom ñaar ba léegi fii ci arène nationale ñoom ñaar diggante Quench ak Lac ba léegi ñoom ñaar ñu ngi jàppante ñambut production moo na fi woo ndeysaan mi ngi noonu. mais bëre bi Bamba li ma ragal mooy buñ taxali ko waatee bu bu ñëwee. laama ji dina jeex mais ci nii nii nii yaakaaruma ne non non. yaakaaroo mu jeex ci jàppante bi déedéet. Hmm. waaw il faut ñu taxali ko arbitre suuf waat. waaw kenn ku ci nekk nag fa nga jàpp na dafa bloqué. waaw parce que dañoo tëj bëre bi. non dañoo tëj bëre bi waaw. arbitre bi atana suuful bi ñëwagul. coonoy nuyoo. waaw coonoy nuyoo. coono mi ngi nuyoo. arbitre bi suuf waat na. Quench nag pied gauche bi ko Lac tegal xaw na ko gêné ci bërëm. moom Lac Rose. non moom Quench. ah bi. pied gauche bi xaw na ko gêné quoi. ndeysaan xaw na ko gêné. laalaaxi laalaa. Lac Rose na. waaw. loolu moo ko jig ci combat bi. loolu moo gën a nekk avantage am ci combat bi. dëgg la mais Quench nag na fàtte ne la te ragalul. waaw waaw waaw waaw encaisseur la parce que mbiru jàpp la. mbëru jàpp la kañ dem ne kaana mbëru jàpp la moo na fi mu ne nii ñoom ñoo jàppante nañu ñii kat dañ ñuy nëbb waaw waaw xam naa ci staff Gaston production bi lañ bokk moo tax ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi jàppante ba léegi kaana mais lagros li muy may Quench si bëgguma ko waaw loxo yi ci biir ngemb li bëgguma ko bëgguma ko am na ñaari ngemb fi mu waaw parce que Quench mbëru jàpp la lu bëri balaa balaa muy mën a feeñ dëgg mu jàpp parce que li mala la waxoon sànq ñoom ñaar ay mbëru loxo uh-huh. dinañ bëri tànk mais bariwul. du bari mais mais mais kii li muy maye nii lan la. Lagrosse. Lagrosse li muy maye nii wóor na. wóorul woo non wóorul. wóorul. wóorul de. bi bëral daanaan la. non daanaan la lu ma la waxoon. ndeysaan arbitre bi àtte na leen. protestant bi mu ngi koy yàbbi yàbbi na ko. non coono lu ma la waxoon. coono day ñëw première jàppoo bi souffle bi. première souffle bi. ñëw ñëwagul gisoo waa Fass yee koy. sànni ndox noonu ndox day sànni. maa ngi lay wax sànq dama gis si moom poids boo xam ne nii gisuma ko masse boo xam ne nii. taamu ñu di ko gis si Lac Rose waaw dafa bëgg a naan. dafa bëgg naan contact dafa métti bamba bëre dafa métti bëre dafa métti kon si tamit mi ngi naan. mais lii avertissement mën na ci am parce que 10 minutes yi matagut. waaw day na waar waaw na am coono day feeñ. moo tax sànq yaa ngi laaj giri giri ne da war a jeexal ci cinq minutes. man waaw liggéey na lu ko jeexal ci cinq minutes surtout parce que combat boo ko bëggee gaawal. dafa am planning boo koy liggéey boo koy préparé noonu adversaire bi boo xam ne nii ci première cinq minutes dina wóor na leen liggéey na loo xam ne nii. mais Lac Rose lan mais moo arrêté combat bi di naan. Quench mooy dóor bi mu dóor bi arbitre soufflé loolu lañ ko avertir. ndeysaan si daa arrêté combat bi te arbitre bi soufflé wul. Coins daa arrêté combat bi taat bi si. moo moo waral abet. moom Lac Rose moo tax ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo. waaw mais loolu lépp ci ci bëre la bokk ci stratégie combat la bokk. xaw a tas sa ngemb takkaat. yooyu mel ni luy laaj. xaw a saalewaale voilà saalewaale. ndeysaan gën a xam ndeysaan mi ngi noonu ñoom ñaar ba léegi Coins moo nekk à gauche. Lac Rose moo nekkee à droite. waaw daa mel ni mais mais Lac Rose mii daa mel ni daa commencé sonn. non dafa sonn dafa sonn moo war a diriger combat bi fi mu toll nii. mais du xeex dafa war a bëre. moo gën a doon xale. waa bëre moo gën a mën a sonal Lac Rose ka xeex bi muy xeex. fi mu ne nii voilà da koo war a jàpp bëre loo ko moom loola war a def comme ni doon def bu njëkk. Uh-huh. Ah, ndeysaan mi ngi noonu Kaana ba léegi ñoom ñaar ñu ngi bëre xeex nañu jàppante nañu ñoom ñaar. waaw jàppante waat nañu. ñoom ñaar jàppante nañu. mais Lac Rose daal man jaaxal na ma Bamba. li muy may Quench ëpp na trop. mais est-ce que est-ce que jàppul ni Quench fi mu ne nii daf koy bàyyi xel. non da koy bàyyi xel. mais asa euh, temps bi jeex na dix minutes di mat. mi-temps nañu. ndeysaan cinq minutes lañ doon waxtaan bëre nañu ba mi waa waaw nañ bëre nañ dix minutes. arrangement la ci Lac euh, baax na ci moom. lex. ndeysaan ñoom ñaar arbitre bi sifflé waat na combat bi ñu ngi ci deuxième mi bi Kaana. waaw deuxième mi dem na ñaani ndox kër si tegaat nañ yeneen consigne mais fi mu ne Coense mooy diriger combat bi. Coense mooy diriger fi mu waaw parce que sànq gis nañ ne Lac Rose dafa sonn dafa sonn trop moo tax. mais est-ce que mën na jeexal combat bi moom. est-ce que mën na jeexal combat bi waaw des fois nga jekku te doo xam nooy daane. waaw jàpp daan dafa am xam ni ñuy daane. loolu nag ki nga xam ne bëre mi ngi ci yaramam. loolu moo ko mën maanaam ñoo xam mën nañoo dut ba camp mais du ñu dugal. noonu la demee nag Bamba. ndeysaan. <laughs> fi ne Coins moo appauvant ci biir combat bi. Coins moo appauvant. waaw mais est-ce que na exploite li li mu am nii nii nii nii. ndeysaan Coins moo nekkee à gauche. fi mu toll nii day négocier combat bi parce que physiquement xam na ne Coins moo ko gën a taxaw te Coins tamit xam na loolu moom. Coins xam na loolu. moo tax mi ngi attaqué mi ngi dox di dem ci moom. waaye Lac Rose mi ngi andi suul na tànk ya suul tànk yi. waaw Lac xamee ko woon lii. loolu mooy taxawal. waaw mais dafa war a taxaw donte mun na mun nay sànni ay coups yu daal sax mais mu ne ko parce que lii mën na koo jëloo avertissement euh, mën na koo jëloo waat beneen. avertissement boo xam baax ci moom. waaw bu temps bi jeexee tamit. dañuy jox kële victoire quoi parce que. ku ci bàyyi dóor sa morom waaw waaw ku ci bàyyi dóor. xeex xeex ba xeex ba dem na ñu ngay dem. xeex a ngay xeex ak moom attention xeex nañ. jël na tànk ba jël na waaye mu may. xeex ba xeex ba xeex ba. Quench Quench la def nag. Quench xam nga xeex bi à chaque fois. voilà à chaque fois côté xeex bi. Euh, boo xoolee xeex bi. Lagos moom mooy demee ci xeex bi. non parce que moo dàq xeex. moo dàq xeex mais warul woon nu ngoo jàpp. Oh, mais li muy def nii wóorul. xeex bi def wóorul continuer non non wóorul. wóorul fi mu ne nii gis nga waroon jël benn risque fi mu ne. non non. day daanu day daanu day daanu. da koy daan mais waroon jël risque yi dafa sonn dafa sonn. xam nga li ma doon wax dafa sonn Bamba. daa dafa sonn. te à chaque fois daanu nii lay daanu. mais jeexal doyal ci combat bi def. su yooyu mu doon def lépp mënu. mais lii lii mooy lan ni dafa tëdd coin sa koy yëkkati. oh mais mais Lex yow kii euh, Kaana. waaw jëlal lii mais Kaana Kaana làmb ngi nii ndeysaan. xam nga dañoo wut si woon waaye ñu daan seen mbër moo tax gis nga ñiy ànd ak mbër yi kenn amul seen fay. non mbër amuñu fay ñiy ànd ak ñoom parce que far moo gën a métti. di laa ndeysaan yow li ngay daj mbër mi moom du ko daj xoolal ndeysaan. yaram ndaw na mais lamb la. yaram daw na xoolal ni mu toogee xoolal ma ni mu toogee nga xam ni tey amul lu ko neex. non amul lu ko neex. parce que amaana bi ñuy jël combat bi ak bi ñuy ñëw yëpp amoon na yaakaar ci mbërëm mais nag yàlla mooy dogal. yàlla mooy dogal. xale supporter yi ñëpp ngi ni teg fi mu ne nii. waaw parce que xaaruñu woon lii nag ci seen mbër. même bu doon xaar defet tamit. mais xaaruñu woon genre yi. yaakaaree wuñu ko woon nii. non non non non lii genre humiliation la ci lagros Rose. ak niveau bi mu tolloon. Euh. tay bu demee bañ koy daanee nii ci làmb. loo bëgg a dama ne la. di nga làmb ji nii. nekkoon làmb joo xam ne làmb jàppante la. Lac Rose waru woon jàppante. waroon def dafa waroon indi bagaar bagaar bi indi woon bi mu ko mujjee daane nii bagaar boobu la waroon parce que kii yaa ngi ko yaa ko sut ba pare da saa yoo ko sa waay jàppee benn côté rek la ji bi yoo xam nga loolu da nga koy sol ko solee ji nga koo añ mais boo ko ku bëgg